di wax eh, barki demb rek la ma sous préfet woo Jibi Diallo mën naa citer son woo moo ñu dem ba bureau ñu defal ko recensement bi nga xam ne nii moo nekk ci marché bi yëpp mais bañ demee tamit toog nañ ci waxtaan ci débat ci ba mu xamal que ni daal comme dafa doon loo xam ne nii état da ci bëgg a appuyer yooyu ndimbalu état yeneen ñu ko ci xaar <laughs> c'est vrai que duñu généralisé waaye dañu jël nombre bi nga xam ne nii les sinistrés lu ñu jëkk a xool d'abord mais suñu amoon lu ñu gën a tamit dañuy généraliser rek parce que ñoom ñoo bokk nekk ci marché bi ku ci lakkalewut tamit booy génne sa bagage dina am yàqu-yàqu boo xam ne la plupart duñ ko perte moo tax man daal su ma amoon lu ma gënal ñu généraliser benn yoon mais comme demee ne nii daal ne ma ñu recenser am na nombre bon nombre boo xam ne wax dëgg yàlla ne am naa ci satisfaction waaw jox naa leen ko nag ñu waxtaan ci mu dolli ma xel ne am yaakaar que ni daal lépp état dina ci dox lu mat daal ba dina ko jébal li monsieur de kii le ministre de l' intérieur quoi Aly Ngouille Ndiaye te ñu ngi am yaakaar si ñoom trop daal wax dëgg yàlla te loolu tamit ginnaaw loolu am na organes yu fi jaar tamit comme waa INACOA ñëw nañ fi mas mas waslu seen àq ak ñeneen lu demee ni kii mën te ñeneen waa si caisse sécurité sociale ñëw nañ fi aussi ak euh, waa Masalikul Jinaan suñu mbokki taalibe yooyu ñoom tamit wax dëgg yàlla dox nañ seen tànk jub fii dox fi tànk kilifa waxtaan fi waxtaan yoo xam ne waxtaan doo yaram ngir gën gën ñu defal aussi da ko sañoon tamit lii doonu luy gën quoi wax dëgg yàlla doonu lu gën mais nag ñu waslu àq rek ñun tamit ñu delloo suñu bopp ci yàlla waaw. bor yi si banque yi moom xam naa la plupart banque boo fay dem il faut dana la jox kii boo xam ne moo lay mettre en assurance quoi. loolu la plupart am na ñoo xam ne nii ñu ngi ci ak euh, beneen projet bi nga xam ne moo nekkoon DER te ñu ngi koy ñu ci profité occasion bi di ci waale monsieur Sarr nga xam ne moo nekk directeur bi wax dëgg yàlla euh, am na euh, lu mu ci doxoon daal de vraiment à grand pas ba am na ñu ci jotoon jox sax te xam nga ñun tamit buñ leen kii ñu wara fay par weer dina xaw a doy waar ñoom ñu tamit ñu ngi koy lancer un appel daal mu xool nu mu ci mën a soutenir de ce a sax bu mënee revenir aat xoolaat ba xam ñeneen ñu mën a dimbalaat ci demee noonu nous sommes pour que pour ñu ku ñu daal dëgg dëgg mais en matière d'assurance surtout le secteur informel du ñu am temps sax dem na yaa ngi jëm a assuré que yeneen loolu moom état moo ci mën a taxaw xool ñu ba xam parce que nit ki moom bu nekkee si sa njaboot la bokk il faut donc war a mën a jàppale su côté boobu surtout le secteur informel la plupart ñu ko occupé Euh, ñu jégal ma ci wax ji waaye c'est des analphabètes ou bien des illettrés am na dëgg la am na des bacheliers ou bien des licenciés mën naa ko wax sax ñu ngi ci te ñu su nous sommes des soutiens de famille ay soutien de famille am yaakaar nit man mii di wax ak yow la même chose am na loo xam ne nii du lu ñëw mën a wax ci kii ku ci nekk xam nga responsable bu nekk sa ginnaaw waaw talaw xam ne ah, loolu moom manque de considération boobu noonu bu nekkee am na tamit nañu xam ne loolu c' est à travers le Sénégal ñëpp boo ko xoolee ñëpp ci trottoir yi la ñu bëgg di lal. Euh, soyons compréhensifs rek mais doon loo xam ne nii état bi gënal na ko te gënal nañu ko tamit kuy lal ci mbedd ku ci nekk li may wax rek. ambulant boo ci gis rek boo xaree xolam bi magasin moo ci nekk ou bien bailleur de moo ci nekk kon ni ñu xool nu ñu recasé waatee nu ñu defaraatee suñu tooguwaay mais bu doon loo xam ne ni day diñ définitivement kon dina métti Sénégal dina métti ci askan wi aussi parce que ñun su may wane ñoo yore Séné ñun ñooy askanu Sénégal waaw la plupart du ma la wax rek ku ci nekk lu nekk sa ginnaaw wallaay la xas ji mënu ma la ko responsabilité bu nekk sa ginnaaw mënuma la ko wax. kon ni ñu xool ni ñu soutenir am ba te ni ñu may bu ñu waxee rek ñu ne peut-être lu ñu occupé secteur informel bi la ak yeneen ak yooyu ñun ñëpp benn lañu comme lu may wax rek. mënoo am sa bac mbaa mënoo am sa licence te jaaroo ci école primaire ñun aussi secteur informel bi noonu la demee balaa nga nekk ci formel bi secteur informel nga kii te ñun ñëpp ku ci nekk sa bagage boo ko boo sañee ñëpp marchand ambulant ñoo dem di ko jënd di ko jaayaat kon ñun bu ñu seetaanee ñu croiser les bras vraiment continuer métti ci Euh, euh, d'une manière générale daal dina métti ci ñëpp waaw. dëgg fa yàlla fii bi perte nañ fi alal ju dul jeex perte nañ fi alal joo xamante ni amul si àdduna moom man loolu mosuma kaa gis sax wër lañ perte fii waaw du état bi lañ bëgg mu ñëw jàppale ñu mu ñëw jàppale ñu fii parce que àdduna fii nit amoo lul say nit doomu aadama yi nga xam ñoo la dimbali teg la ci kaw nañ ñëw fii dimbali ñu. gisal nañ xool yeneen état yi état dañuy jël seen seeni seen seeni seen i seen i seen doomu réew indi Sénégal fii jox leen alal ju bari ñu ñëw fii ubbi ay magasin ñu dem foofu di fa jënd nañ ñëw dimbali ñu fii mais tey jii ñu toog fii nii suñu bagage di lakk gaan gis ñu autorité bu fi ñëw boo xamante ni ñëw nga fii pour xool ñu ay milliards ay milliards di lakk fii Petersen ñoom ñëpp ñu toog ñu toog seen biiru kuy toog mel ni ñoom ñun ñuy tey jii plus de ay 5000 personnes si benn milieu fi liggéey tey ñu taxaw di ñu seetaan nii te doomu yi nga xamante ni sax nga xamante ni xamuñu ñoom seen yoo nekk ci mbirum état sax ñoo nañ fii seet suñu mel na ñun ne bokkuñu si bokkuñu si réew mi wala amuñu loo xamante ni nañ ñëw jàppale fii gars yi ay milliards a fi lakk barki alxuraan ci def ak moom. nooy def soo demee ba am fay boo amul boo amul toog mun parce que ñu ngi taxaw di la seetaan nan ngay def lépp xaalis bu bari ci biir banque ay millions nit bu demee ba commencé liggéey am na fu muy toll far force day jokkoo ak banque faaw nga liggéey ak banque parce que mënut a ñàkk comprendre léegi tey bu tollee foofu léegi say bagaal lakk banque du amul lu muy xaar ci loolu moom amul dara lu mu lay lu muñal ci dara lim mu teg ak yow loolu xam nga kon ñoom nañ ñëw dimbali gars yi fii ay xale lañ xoolal même pas vingt cinq vingt cinq ans vingt cinq ans ki mag fii trente ans ay jeunes kese tey jii bu ñu jëloon yoonu géej gi léegi war a dugg ci biir géej gi léegi nga gis léegi ñu daw kale ñu pour dem Espagne léegi la moo taxoon ñuy seetaan nii lan moo tax léegi ñuy taxaw fii di ñu seetaan ñuy toog fii chaque jour 24 heures sur 24 xëy toog ci naaj bi nii ba ngoon jot loolu lañ bëgg bu yàggee nañ def solution day uti dëkk de boo gisee jeune ñu koy crompe muy doon ay terroriste wala muy doon dara lu mel nii moo tax parce que mënu maa xëy toog nii suba teel ba ngoon jot ñu ñëw génneel ma saagu milliard taajal ma may taxaw di seetaan c'est impossible ah. yàlla metti rog metti trop trop ndax fii bëri na ñu toog fii genn wàll gi yëpp instant yi banque mi ngi leen di topp wax dëgg yàlla dafa metti te xam nga dafa neexut bagage yi ngay gis fii nii yëpp dañ koy dañ koy laal suuf di ko wanteer ndax lan ndax dépasse lu ñu lekk wala lu ñu yónnee dëkk ba boole koog fii poussière marché bi dafa tilim bu ñuul kooku sa yére tey boo ko indee doo ko solaat teg ci lal say bagage di ko wanteer li ñu gën a metti nag mooy Sénégal marché bu lakk ah li gën a yéemu mooy ca tàng-tàng ba duñ ñoo fay ko fii ak pompier tout près ma du 100 mètres ma du 100 mètres xale bu am mën na koo dox fii ak pompier xale bu am 7 ans mën na koo dox même pas 15 minutes oto sàpp dafa am 2 heures de temps 3 heures de temps xoolal ñi fi toog ñëpp li ñuy ñaan li ñuy ñaan état bi fekk mën nañoo dimbale barrières yi nañ ko sës nële mu jigee mu mu mu jigee bâtiment bi nit ñi bañ a toog foofu te ñu laal liggéey ñun ni état ñaanuñu ko xaalis politiciens ñaanuñu ko xaalis commerçant ñaqam lay dundee suñu ñaq lañuy ñuy dundee. askan wi yi ba nga xam ne du ñu aw fii pour leen. loolu moom amul pexe seen bu fekkee ñoom dañuy wax ne yoon bi. moo teeñ ñoo fay lakk bi amul période seen parce que fii conteneur dafay jaar njaganjaay dafay jaar super dafay jaar yaa ngi dégg oto bu ne dafay jaar waaw loolu baarawul baarawul sàppoor la tax mënuñoo fay lakk gi ba léegi ñoom nañ ko wax nit ñi nañ wax nit ñi la tax mënuñoo fay lakk gi waaw ambulant yi sonn nañ waaw ambulant yi sonn nañ. waaw nañ ma ñu liggéey ñu nag suñu teraanga fi la ne man moom sama tool fi la ne man fi naa xam fi ma soog ñu tool fi la ñuy bayee yaa ngi dégg nag nit ku daan nag foo foo liggéey rek foo la sa teraanga foofu la ne ñoo suñu teraanga fii la ne yaa ngi dégg kon nag dañuy ñaan ñu may ñun ñu liggéey rek waaw muy ba so ñu defaraat rek ñu liggéey tam lakk na lakkaa ñu defaraat kenn gis ñu kenn kon nag ñu may ñu liggéey rek délégué yi fi na Babacar ñoom ñoo war wax ñu war a wax responsable war a wax waa presse nañ gën wax wax jot na waaw ah dañoo liggéey xeex ñu xeexuñu xulóowuñu waaw saa ñu xeer saa ñu def defuñu daal dañaa toog yoru asaal li waaw mooy loolu waaye bu ah borom kër la ñu ñëwatu ñëwatu ñëwatu ñu dox a jóg ñëwat bi rek ñëwatu rek.